gu ma jaxase ak waa réew mi xamu ne internet bi ma doon tere sax dama koy bàyyi noonu parce que yu bëri ci laa ko yëgee kara pardon waaye jox ma benn chaise ma taw nel Amadou mu bàyyi xale yu muy nogot sànq ba tey xale yaa ngi jooy naan mburu na bàyyi mburu xale yi eh mag day lekk lekku mag waay waaye topp di lekk xam salaamaaleykum sëñ bi Mbàkke Balla Aysa maa ngi lay ziar suñ bi maa ngi lay nuyu maa ngi am cofeel ci yow sëñ bi li ñuy wax fii nii man loolu sama yoon nekku si de waaw dañ may tuumal man yëguma tinu ma laalo laalewuma ak coow li waaw laalewuma ak coow li parce que coow li waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw xam nga waaw waaw bi xam nga bu fekkee da sol lu weex di jaar foo xam ne dafa am këriñ pour nga takk day yomb waaw waaw dëgg la kay waaw waaw dëgg la kay waaw dama ne xaaral ma wote pour leeral parce que tamit damay bañ ñu ne président Macky Sall dafa jël ay matuwaay lii lii man coow li ci dara parce que damay jiite ay nit te kenn ku nekk li ma la dénk moom ngay doxal après boo ñëwee rendre ma compte na ma xool situation bi mais du man maa ko maa ko kii waaw waaw waaw waaw damay bañ rek parce que xam nga kenn ku nekk day ñëw wax la nii la demee dañ ko complot parce que tamit waaw waaw waaw ok si ok waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw walaay sëñ bi bilaay sëñ bi man lu bëri yu day xew ci réew mi te du ma ko yëg man a xaaral ma wala pour leeral daal waaw amin amin amin amin amin barke bala islam amin amin amin waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jàmm moo gën waaw waaw waaw waaw fitna kay waaw yàgg na dégg ñu ne yee fitna baaxul man yow ma ko def falaa ko bàyyi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw baaxul waaw waaw waaw waaw waaw waaw kay waaw waaw waaw waaw amin amin waaw amin amin waaw waaw kay waaw amin waaw du am incha allah waaw yëfin na baaxu